waaleykum sama abonné kontaan naa bu baax yéen bu leen di fàtte abonné wu ci sama seen YouTube bi lien bi mooy ci TikTok te nag dañuy ñëw ci attaquant de pointe bu xarañ bu mun lu muy def mu nekk Gabriel Jesus mu nekk aussi ancien joueur Manchester City mu nekk jour boo xam ne nii à tout moment day def différence moom Gabriel Jesus te nag dafa ñëw ñu koy laajte moom euh, nu mu gisee club bi euh,

équipe bi di visiter aussi euh, euh, club bi xam club boo xam ne nii te mu foofu la ñëw tey moom Gabriel Jesus mu nekk ndaanaan nekk attaquant de pointe boo xam ne nii bu mu ñëwee City pour mu imposer mu doon lool problème ci moom mais lu mu mun jëm na ko wane na boppam moom ndax boo xoolee Kun Agüero moo ko fatoon Kun Agüero dem nag euh, entraîneur bi mun am choix boo xam ne nii mooy des fois jeux. faux neuf lay def man maanaam des fois même buy kii du am attaquant de pointe moom des fois sax euh, côté gauche bi lañ koy teg moom euh, Gabriel Jesus loolu tamit mu joué ci moom lool sonal ko lool ci club Man City finalement nag lañ mujjee recruter Erling Haaland Erling Haaland nag bu ñëwee ci la moom Gabriel Jesus Arsenal teg ko bët bëgg ko nag yàgg lool nekk ci ay dossier moom Gabriel Jesus finalement nag mu officiel ñu jënd ko mu ngi nii ñëw nu Arsenal mu ngi di ànd ak Mikel Arteta boo xam ne nii ancien agent wu Pep Guardiola la kon nag mu nekk lu xam ne da ngay jóge ci metre bi ñëw ci Euh, élève bi kon mu nek aussi luy yomb ci mom ndax xamantene ñu moom ak entraîneur bi mom euh, Gabriel Zesi kon dañuy gis ne ni saison bi di ñëw mu développer ak maillot Arsenal nek numéro 9 Arsenal ndax bo xolé Arsenal sen attaquant de pointe la cagette dafa mujj dellu ancien club mom muy Lyon légui nak mom Gabriel Jesus mom moy ñëw remplacer ko mais aussi moy ñëw solat numéro 9 bi ndax mom attaquant de pointe la boo xam ne nii foo ko teg ci kaw dina jouer côté gauche bi boo ko fa tegee nos yeux mais aussi côté droite de Boko fa jouer Gabriel Jesus mu n'a nag mais mon nekk jeune joueur mon am ans avenir mu le la jour gis de jeu nga soxla la coupe du monde bi mon aussi tant de jeu la soxla permettre mon équipe nationale bu Brésil ndax saturé euh, yombul Gabriel Jesus bu dina dina attaquant point bo xamné ni kenn du laal place am mom Gabriel Jesus bo xamné ni eh, attaquant bu ay la mais aussi bu mën duggal la bu am vivacité la amna technique té mën na duggal mom Gabriel Jesus ci mom lañ leen indil tey mu nekk ndaanaan tey nag gis nañu ne moom dafa ñëw Arsenal di présenté wu xool club bi xool stade bi di waxtaan ak ay journalistes yi ñu koy posé question moom Gabriel Jesus mu koy tontu di ko laajte est-ce que club bi neex na la mu ne si club bi kay neex na ma di ci wax wax yu rafet ci club boo xam ne nii jegewoon na ko ndax moom mu ngi siti mais Arsenal aussi mu ngi à côté kon. Euh, club bu mu xam na ndax siti ak Arsenal daje nañu ba taay mu nekk nag euh, you know obviously uh, I'm not following too much uh, European teams but uh, when I, I saw uh, some players who played here I was like uh, watching like oh wow this club is big this club is is top you know when I come to play against I was looking to the Emirates it's very good the stadium so yeah I'm so excited to play here